بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكو دافاي نيو ديلو سي وات سي سونو دارس ايجيبي غناو با نيو جيخالي ليغا خامتيني ني موم مو نيكون المد بالالف داني دال دي نيو سي ليغا خامتيني ني موم موي المد بالواو كوم نيكو تيري بي توفتالي بوكو دافاي كوم تيري بي اندي xëcc bi ak euh, waaw bi intégralement moo tax ñu daal di koy indi dooga nag après incha allah dugg ci li nga xamante ni nii moom mooy téere bi waxoon nañ ne arafu madd yi ñett la madd waxoon nañ ne mooy xëcc donc araf yi xëcc ñett lañ alif mooy dem ak a waaw mooy dem ak u yaa moom mooy dem ak i bu ko defee kon comme nañ ko defee woon ci alif bi almaddu bil alif noonu rek lañuy ñëwaat daal di koy defee ci almaddu bil waaw ñu tàmbalee ndeyjoor bu ko defee uu bu tu su ju xu xu du zu dem ci ligne bi ci topp zoo zoo top su shu su do to ذو عود de limitje top. Ru. Fu. U. Cu. شوب و يو ماغوك كون فوفو لا بندو تايبيام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته